salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar seen mbokk la seen xarit président Lamine Gueye tête de liste de la coalition Xàll Yoon Xàll Yoon nag dafa di coalition bu ñu teg ginnaaw bu ñu amee jàngat ak càmbar ni réew mi di doxee ku ne seetlu ne débat politique Sénégal jamono ji wala boog deux décennies yi ñuy génn du débat boo xam ne dina jur yaakaar ci réew mi surtout ndaw réew mi pour ñu toog ci réew mi ce n'est que yoo xam ne ay invectives la même bu campagne électorale jotee bu ñu waxee as euh, euh, ñi jiite réew mi wala boog ñiy wut réew mi ñuy waxtaan dañu dégg mukk loo xam ne perspective la boo xam ne dina tax ndaw ñi yaakaar wala investisseur mën a ñëw Sénégal loolu nag moo ñu poussé ñun coalition Xale Yoon ñu ne nag nañ jël suñu responsabilité forme formation politique boo xam ne dinañ jug élection bu jug mu bokk élection législative yi ñu jëm nag dañ cee bëgg dagaan baatu askan bi waxtaan ak sénégalais yi pour ñu mën a yegg assemblée nationale dañu bëgg nag dañoo bëgg teg un contrat de législature de dix points boo xam ne dinañ voté ay loi yoo xam sénégalais bi dina gën a gis intérêt ci réew mi surtout ressources naturelles yu ñu am ay loi yoo xam dina changer le quotidien des sénégalais parce que ku bàyyi xel xam Sénégal fi mu toll boo xoolee sunu mébét surtout ñun sénégalais yi nga xam pauvreté fa la mën a yam buñ demee ba réew moo ñu ëpp ci réew mi seen objectif principal mooy lan nañu ndékki añ reer mooy seen réussite bu demee ba lekk ak naan rek mooy réussite réew moomu kon pauvreté fa la mën a yam loolu nag du dara loolu yorin bu bon bu politicien yor Sénégal à un moment donné nag jàpp na ñun coalition Saxal yoon ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi dañoo war a jël suñu responsabilité bokk ci langue politique bi pour renouvellement mën a am parce que une des conditions sine qua non pour que le Sénégal puisse aller de l'avant dañ jàpp ne c'est le renouvellement de la classe politique Lolo tax nag ñu ñëw dagaan seen pour mën l'Assemblée yegg assemblée nationale mën a doxal un contrat de législature nek 10 points dinañ ko Fessel, nag ñaan ñaan ngeen bàyyi ñu xel ci campagne bi ñu jëm ngeen mën a xam fan jëm Sénégal lan lañ bëgg def assemblée nationale en tout cas bëgg nañ am assemblée une Assemblée

di ñaan ngeen bàyyi ñu xel pour campagne bi ñu présenter sun contrat de législature